action. action. xale ñi dañu ñëw kii voilà ñu ngi fii nag si euh, dressage bi wala ñu ko gisee macha allah gis bi li xam ne mu xéwal. Tuubaa fay waaw ndax xéewal yi wax dëgg yàlla lépp wax dëgg yàlla ñun amuñu lu dul di la sant di la gërëm ndax lii ku xool lii xam ne jël na temps métti na te def nga ci sa ñaq def nga ci sa doole yàgg ñu nga àndal yal yàlla fay leen. ñun daal kontaan nañu sant Serigne Touba rek mooy ni ma leen ko waxee sànq rek bëgg Serigne Touba rek. xër ci Serigne Touba moo tax ndeysaan amu ci sago moo tax ndeysaan ñun kontaan la ñu def ak mbégte ànd ak moom te itam jàpp naa ne wax dëgg yàlla euh, ñu ñaanal ko ñaanal ñu ngir euh, borom bi gën ñoo dolli ay xéewal lu ñu am rek waaw bokk ko ñi ñu ko war a bokkal ba pare nag waaw màggal bu jotee li ñu def ren ñu duble ko duble ko duble ko doublé ko waaw wan ko jaam ñi ndax tamit loolu lañ ci am di sant yàlla rek jërë ngeen jëf kontaan gis nga petit mot de de de son mari Billy ah ñëpp xam nañ leen macha allah petit déjeuner Marichou si li nga xamante ne mooy màggalu Touba 2022 ah validé la ñuy wax comme ni ko euh, xale yi di waxee macha allah gis ngeen euh, xarit yeeg am di jàmm yeeg ñëpp ngi si biir ka nga xamante ne moom saa su nekk rek da koy dar ni dar mara ah. ah du ko ko bàyyi benn yoon ah muy big big noo gisee li nga xamante ne mooy màggal kontaan rek comme ni ma leen koy waxee rek du dugguleet mari moom ku ko xam ne këram sax dafay dressé macha allah lii leen min ci moom te it lii leen xam ci moom comme ni ko borom këram waxee moo ma dar ko maa moom beneen dara ay na kontaan nañu. mënu saf na. jeex na mu ngi noonu. Thiam ñoom tamit waaw voilà jàppale nañu bu baax ci biir yi waaw ñu leen di waaw leen di sant bu baax di sant ñëpp ah di sant ñi nga xamante ni aussi waaw ku euh, ci mel ni soxna bu Wade aussi suñu jigéen bu baax la tamit waaw mooy cousinam tamit jàppale nañu ci bu baax a baax ci maanaam di wax rek ne maanaam yaatal gi rek daal waaw yaatal gi yaatal bi soxna Mina moom moo jaar euh, ci Amis Bouchi voilà. nga yëg ba sa borom kër ñëwee tey di la wax yenn kàddu yi en tant que femme mariée. bon yaakaar naa ne euh, moom dama koy bàyyi ak yàlla rek. dama koy bàyyi ak yàlla rek yàlla mi am fay yàlla na ma ko suñu borom fayal ndax lépp moom la bu ko ñaawaloon mu ñaaw waaye deful loolu da ko def mu rafet kon di ñaan yàlla sama diggante ak moom suñu borom gën ñoo dàqal seytaane gën a dëggal sama diggante ak moom ba ma juróol ko ay doom yu barke ci barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yoo ko xeetu xeetu Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voilà loolu daal ki dama koo nopp waaye. waaw saa su nekk Billy day wax loolu démb dafa maa topp dama koo nopp dama koo nopp loolu tamit kaala de. mais xoolal waaye ah. maa ko gën a buga. <laughs>